waaw batay ñu nek ak le grand champion armé mu doon daanaan bo am ten ken dor ko présenter xalé bo am ten mi ngi bay waram ci lamb bu jugé mobilisation bu am dool daal koy top champion ñu lay nuyu waaw mbokk ñu ngi lay fay di nuyu wa yembal yëpp surtout ben barak wa yembal nord sud malika kër masaar waaw di nuyu armé armé ak arméen yi mais terme boobu grand na armé armé yi arméen yi waaw waaw armé armé ak arméen yi moy manam armé ñu gor ñu jigéen ñi daal <laughs> ma gëna xam lool amna solo mbeur lan mo waral téway bi tay waa teewaay bi ñëw feddali kóllëre ak suñ doomu nday waaw ngir soutenir ko jàppale ko tamit yàlla suturaal ko may ko ci bis bii mu jëm ndam lu kawe njortam ci barke Seydina Muhammad loolu lañ koy ñaanal ndax suñu nit ñëpp xam ko ñun waaw kon mënuñu lu dul teew bu dul dara sax deret yi daw si yaram bi rek muy yëmbal bi dañoo war a teew mais suñu kóllëre la ñuy ànd lu nekk nag daanaka mën naa ni avant combat bee taxaw ba ni mu taxawee ñoo koy ànd waaw muy entraîné lu wóor te nañ yaakaar ci moom tamit bu baax a baax waaw mbër bu loolu weesoo moom mooy combat capital di bëri nga xam te mooy mbay gu mbër bu offense bu at bu sifleeg day dal sa kaw lan nga koy digal waaw ku xam Alioune Sèye Junior xam ni attaquant la attaquant la te fu mu jàpp ci yow bëre yàlla dogal na loolu ci moom xawma lan lañ koy jooyal mais du mën bëre waaw du ma ni moo fi dàq bëre de mais bokk ci mbër yi fi dàq bëre li ma la wax nag ñu dëkk yëmbal xam nañ ci dara. kon mën nañ jàpp ne sa xel dal na ci moom. non sama xel dal na bu baax. waaw dañuy ñaan daal yàlla mi nga xam ne moo yore ndam te ndam jafe ñu lool yàlla may ko ndam lu seddu guy ci barke Seydina Mouhamed di ci woo nag fan su armée yëpp comme ñu ko defee woon ci général dama bëgg ñu ñëw génnee banderole yooyu ak lépp armée armée yi ak armée yee yéen laay waxal génn leen combat bi seen combat la sama zimo mooy bëre waa ndam rek incha ci kaw mbay guy gi. bu loolu weesoo nga jël ki nga xam te ne mooy Tapha Boy Bambara mu doon am te ne coow yi bëri na jël ko. waaw maa caat moo ñu boole. wa ma ciat lamb moñu ñu boole yàlla dogal na taxawon na yaqku taxawat dañu ñaan yalla mu nga xamni dara tëw ko mu suturaal ñu bis ba ñu daan ko jël bu set wecc bu amul benn wérante ba légui fixé go leen dat. non déggaguma dat nag waxaguñ ma benn dat man. kon yaa ngi ci waajtaay nan ngay waajalee combat bobu wa comme d'après comme lu ma doon waajee maag samay grand frère ñoom Talla samay ñom ñoom and sé ak sama mafia bi yëpp waaw ñoom Zé wa ak euh, as ak ñepp dal gaay kërs yi sama kërs yépp dima jappalé baax. ñi dama xelal ñi dama wax nii ngay defeek nii xam nga man amu si leen lu may def li ma war ku ma xool xam ni combat bu dee suba sax mën naa ko bëre. kàddu gu mujj. kàddu gu mujj mooy di woo fan sa armée yi combat bi combat bu ñu ñor la na ñëpp génn jàppale Alioune Seye Junior yàlla may ko ndam le 4 ñu jàppale joo yàlla may ko ndam ci barke Seydou Saliou. jërëjëf sant baax di la waaw ñu ngi lay delloo sant di sant seen sud bi di ñaan yàlla mu doon tere ci barke Seydina Mouhamad. ak